fa salaamu aleykum wa wa barakaatu uh, mbokk yi ñu bokk yàlla jalla wa ala ginnaaw biñ ko sante moom ba mu gërëm julli ci yontaam bi sallallahu alayhi wa sallam uh, ñoo ngi leen di uh, nuyu ci nuyub islaam boobu te di jàmm ak yërmande borom bi jalla wa ala ak barkeem yàlla na yàlla ci jullit ñi gannaaw loolu ñu dellu sin émission bi nga xam ni muy al sual wa jawaab e, e, lu jiitu ñu ciy ñëw ñu ànd ak ci benn xadis boo xam ni e, xadis la bu am solo lool boo xam ni xaw na na mën a wax ni dox na waxtoom donte le ni waxtu yëpp moom waxtoom la xadis boobu moo di ban mooy bi ñu àndandoo jëlee ko ci abi hurayrata yàlla yàlla gërëm ko imam Buxaari di ko indi ca saxiixam ba abu xorret ni man day maa dégg ci sama nopp yi ci yonti yàlla bi salaa sallam yonti yàlla di wax ni man day maa ngi giñ ci yàlla mbokki mbokki yàlla jalla waala ana kan mooy giñ ki nga xam ne ay waxam day jarul woon giñ te mooy al saadiqul masduq ki nga xam ne di ku dëggu la waaye kuñ dëggal la ki nga xam ni demoon na ba egg ay noonam sax dëggul ko maanaam ay noonam nungul ko ak dëggoom akuk wéram akuk maandoom ba waxoon ko ni ko ñun dey musuñoo natt benn yoon ci yow wax joo xam ni wax ju wérul la moom moo ma moo wax lan la wax dani inni la astaghfirullaha man day maa ngi nii man yonent yàlla sallam damay jéggalu sama boroom wa atubu ilay may tuub dellu ci moom te mooy ak réccu fil yaw bi ci bis bi aktar lu gën a bari min sabiina marat juróom-ñaar fukki yoon mbokkiñ bokk yàlla jalla waala su fekkee ki nga xam ni moom la yàlla jàkkaar la woon joxar bu ko baaraam ni ko day yow jéggal nañ se bakkaar yi nga xam ne ñoo jiitu woon ak bakkaar yi nga mujj ak bakkaar yi mujj maanaam bakkaar yi nga xam ne daf nañ koo bare yooye de jéggal nañ la ko waaye bakkaar yi nga xam ni tamit ñëwaguñu yooyu jéggal nañ la ko ànd ak loolu moom ci boppam moo ni bis bi léegi lu gàtt gàtt danaa jéggalu sama borom lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon am na sax foo xam ne dikk mu jéggalu ci téeméer yoon wala lu ko ëpp waaye nit ki noonu it ku mel ni Ibnu Umar nettali na daana maa toog daana ñoo toog ak yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn jotaay bala moo jug dey ñu konte ci aw lamañam mu wax euh, astaghfirullah allahumma ighfir li wa tub alayya innaka anta tawaabul ghafuur wala wa anta tawaabu rahim donte ghafuur bi moo gën a comme ci borom xam-xam yi waxee benn jotaay mu toog di waxtaan ànd ki nit waaye nit ñi di ca teewlu mu naan yow de sama borom jalla waala ixfir lii nanga nga ma ixfir nanga nga ma tu mooy na nga baal ma na nga pardonné ma nanga nga ma suturaal wa tub alayya na nga nungul ma sama tuub wa tub alayya na nga nungul ma sama tuub innaka naka yow day yaay nungu waa konu tuub bi waaye yow day yaay jéggalaa kon bi loola ñu koy konteel ci benn jamo benn toogaay rek mboq lu ëpp téeméeri yoon mbokkiñ mbokk yàlla jalla waala kon boo dajalee xadis yooyu ana lañ ci mën a jëriñoo bari na lool bit ci njëkk mooy kon nit ki day di wax ni ah ma duma du ma jéggalu yàlla ndaxte dama néew ay bakkaar wala man awma ay bakkaar wala man defuma ay bakkaar déedéet waaye dafa war a jéggalu yàlla ndax ki nga xam ni moom ka ñuy jéggalu moo ko wax da yow toppatuma la bakkaar yaa xam bu jiitu la woon yaa xam bakkaar la boo xam ni <laughs> bu ñëwagul sax la waaye di jàng mooy barik istixfaar maanaam barik looy jéggalu suñu boroom e, e, jalla waala kon xadis bii day xiirtal ak a ñaaxe ak a encouragé xeetu yonte yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñuy tuub ak a jéggalu seen borom jalla waala ndax it boo xoolee tuub jéggalu borom bi day ma ni loolu mooy doxalin yonent yi alayhim salaam ndax yonent yàlla ba muy ñaan yàlla ak daf ko waxaale jéggal ma Ibrahima daf ko ñaan ak jéggal moom waaye ak ñaari way juram ak ñi nga xam ne ñoo gëm ànd ak ñoom ànd ak moom laa bëgg a wax kon loolu la ñuy xamee ni kon tuub nit ki da ci war a sax euh, bu baax a baax di tuub nit ki noonu al aaz benn saxaabi bu baax la ibnu yasaar al muzani moom tamit dafa wax ne yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dani ya ayuha nnaas ee yéen nit ñi yaa ayuha ee yéen nit ñi tuubu ilallahi na ngeen tuub ci borom bi jalla waala kon fii dafa mel ni ki ñun de ñoo ko moom sax ndax fee dani woon dafa informe woon moom ni muy doxale waaye fii moom da cee boole diggal ñu ba pare nag wax ñu moom ni muy doxale mu ne kat yéen nit ñi na ngeen tuub dellu seen boroom te ngeen jéggalu ko maanaam kon daal di leen wax astaghfirullaha wa atubu ilayhi waaye xam naa nag bañ a bañ a topp compte bi eh, bëgg ji def mille cinq mille dix mille ba far eh, déedul tudd baat bi tuddin bu baax mooy astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah déedéet waaye astaghfirullah wa atubu ilayhi mel ni ñu ko yonte yàlla bi yow soo dikkee taxaw suñu kanam dey naan ñu jéggali leen yàlla te ngeen tuub dellu ci moom yow nag mu ni fa inni atuubu fil yawmi mi atamara man de damay jéggul sama borom ci bis bi mooy téeméeri yoon kon lii sax day wane ni mooy jéggalu borom bi sax dafa nekk loo xam ne lu war la tuub ci borom bi lu war la ndax ndigleb yonent yàlla bi sallam la te xam ngeen ndigleem rek dafay dafay tekki lu war maanaam bu ne digleen rek day nekk lu war ba kere ñuy gis lu koy ci wareel daa di dem ci ak cofeel te moom da ko nekk ci àll euh, maanaahu sax bal ay jëfam da ko gën feddali mooy ay jëfam yi yonent yàlla salaam ay jëfam dafay nekk luñ sopp ku ko def waaye rawante nag bu ko ay waxam euh, gënee feddali gënee feddali waaye liy gën a dëgëral loolu mooy tuub gi ñuy tuub jellu ci borom bi ak di ko jéggalu comme ni mu dikkee ci xadisu euh, abil hamza muy anas ibnu malik di wax ni day yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day dana kontaan lool ci lan mooy ci tuubu jaam bi maanaam tuubu kenn ci yenn bu tuubee day kontaan lool ba ni muy mel mooy ki nga xam ne da ak géléemam daa réeroon ak géléemam dafa réeroon mu nekk ci àll boo xam ni xam na ni xel ni moom bu dee tànkam yu dong mënuñoo traverser désert bi dem wala montagne yi wala xeer yu tàng yi nga xam day daggi der sax waxuma ay tànk nee na mu jëkk saay ba yàgg rek daan ni di dox ba yàgg ni yemeet ci kaw giléem gi ne noonu mi kontaane borom bi jalla wa ala moo ko gën a kontaan comme ni mu dikkee ci beneen riwaay nga xam ne riwaayu muslim la mu ni yàlla day moo gën a tar ak kontaante ci tuubub jaam bi jamono yi muy tuub ci kan ci ki nga xam ne dafay jëlool ay matériel am maanaam marchandise am daa di koy teg ci gileemam maanaam lekk gaag naan gaag yëpp mu ci kaw gileem gi waaye gileem ga daan na dem na yoonoo xamul kañ la gileem gi ñëw mu daal di tëdd nag di nelaw ci taatu garab jàpp ni ah, a say jeex na moom daal na toog daf lan mooy xaar dee nee na bi mu toogee di xaar dee tëdd di nelaw ba yàgg mu niqi feet gis gileem ga tiim ko mboolem la nekkoon ca kaw gileem ga muy lekk yaag naan ya nekk te gaw gileem ga nee na waa ji kontaan xam naa ba mel ni Abdou Aziz Gueye daan ne allahuma anta rabbi wa anna ko maanaam kontaan moo ko ba ne ko yàlla yow nag tey yow nag yàlla yaay sama jaam man yàlla man may buur bi man may borom bi man dafa kontaan ba juum bëggoon a wax ni yàlla yow dëgg dëgg nag yaay sama borom yaay ki may toppatoo yaay ki ma yor yaay ki ma seere waaye kontaan jàpp ko mu ko yàlla yow nag yaay jaam bi man maay borom bi nee na ngir kontaante moo tax mu juum nee na tuub bi nit ki jaam bi tuub ci yàlla nee na noonu la yàlla kontaane loolu lu muy tekki kon nekkate tuub day mbir mbir la moo xam ni nekkul mbir mu ndaw mbir mu foor la kon mbokki mbokki mbokk yàlla jalla wa ala istixfaara ngi ni waaw di nga ne kon ana fan laa koy defee nan laa koy defee mooy ni koy defee de mooy astaghfirullaha wa atubu ilayhi fu ma koy defee waañ wa fan kaw taabalu menuisier bi kaw taabalu tailleur bi fan ci kaw volant oto bi fan ci kaw safo bi fan ci kaw trottoir bi fan fa ma di waxtaan ak nit ña fépp mooy astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayhi ñaata yoon daf ba sonn lu mu gën a bari gën a bari tuyaaba comme li ñu kat texe ñeel na kan mooy ki dikk yowmal qiyaam ñu xool ay dosiyem fekk ci istixfaar bu bare bari mooy jéggalu borom bi jalla waala bu uh, bari Cheikh Moussa jërëjëf uh, imam Mouhamed Habib Seck si leeral gu am solo gi nga xamante ni def nga ko yàlla yàlla fay la amiin amiin mbokki auditeurs yeeg auditrices yi mm-hmm. yëpp rek uh, suñu yaay boppa Adja Ndeye Ndiaye xel kom ñu ziyaara ko nekk ci Mbour 1 fa tabaarakallaa jagleel nuyoo bu baax mm-hmm. e, sëriñ Abdou Guèye moom mm-hmm. it fa tabaarakallaa tailleur bu mag bi en face dina mm-hmm. bagaar waaye noonu nañuy jagleel ñoom laasana ñoom ñëpp rek e, Ousmane sëñ ta e, Issa ñoom ñëpp ñu ziar leen jagleel nuyoo sëñ ki nga xamante ni moom mooy Daax Demba Soumaré si liggéey bu am solo bi muy def Ali Sakho ñoom ñëpp ñu sant leen si liggéey bi fa tabaarakallaa nuyu oustaz Ibrahima Mbène mm-hmm, mm-hmm. ci émission démbam bi mm-hmm, ndokkeel ko ak Assane Gueye nattu kër gi émission boo am solo macha allah euh, macha allah nga koy bàyyi xel nag de ko bàyyi xel émission bu am solo xanaa Assane Gueye ginnaaw bi bi ñu bi ñu dogoo la bi ñu mën toj dara mu xanaa ba mu dogoo pare lay doog a toj da nga gis ci rajo bi gisoo ah, ko fi d' accord waaw kay gis naa ko fi xool xool xool bu sori nuyoo rek dem yoon <laughs> est-ce que barakallah ñu nag si li nga xam mooy question réponse yi tontu bataaxal yi ñu nuyu Serigne Mbaye Tall Xumami si digital bi. Mhm. nga xamante ni fu waay mën a nekk si àdduna bi rek eh, di mën a jàkkaarloo ñun moom zéro la sant Ousmane mi ci technique bi. Mhm. nuyuwaat Baye Bàcci Diop bu baax. di nuyu Cheikh Mori seen ak Cheikh Mouhamed Diouf ak. Eh, ah. waa lew na yëpp comme niñ ko baaxooxee Njaga Caw nee na nuyu ma ko démb kon maa ngi koy nuyu ci kaw safe ba aywa Mouhamed Gueye sama bàyyi wuñ kenn Jamidatu ñu ngi koy nuyu macha allah. kon sëñ Njaga moom ndax pikiiru mm-hmm. pikiiru mm-hmm. ndax nekk nañ si jamono jamonoy Covid mm-hmm. te pikiir yi fi ne nii nit ñaa ngi dem di pikiiru bëgg na pikiiru euh, ndax pikiir day yàqu koor wala du yàqu koor bi si toppit ki nga xamante ni euh, dafa nekk euh, ci maanaam dafa dem hôpital wala ñu yëg ni daal manqué na deret dem ñu prévisi prévision ko ndax xeet yooyu day yàqu koor wala déet waa alhamdulilah Cheikh Moussa lu dellu ci wàllu pikiir bu fekkee piqûre la boo xam ne comme lu mel ni vaccin yi ni ak piqûre boo xamante ni nii maanaam wuutuwul lekk daal. Euh, wuutuwul lekk wuutuwul lekk euh, yooyu moom dara dara nekku ci. amaa nag su fekkee piqûre la boo xamante ni nii nag moom dafay wutu lekk. lu mel ni ñu war koo samp ay butéel nga xam ni dafay euh, uutu lekk benn wala mu uutu naan mm. subaa moom boobu moom dafay dafay dafay dafay yàqu koor mm. waaye su fekkee nag piqûre la comme vaccin yi moom loolu dara nekku ci bu fekkee ne dafay uutu ak lekk wala muy uutu ak naan nag di ko taxawu moom kon subaa moom loola dafa yàqu koor ki woor du ko mën a def na xaar ba ndogu euh, daal koy doo ko def su fekkee nag daruriya la maanaam daf ko nii rek baa mu ñub ko penku jàkka ja euh, kon bu boobaa moom sariya da koy teg sax koor ga day woor bàyyi bu beneen yoon daal di doog a euh, fay bu sooy borom bi jalla waala wallahu taala aalam wa ahkam jërëjëf imam Mouhamed Habib Seck ziar nañu alaaji Mor Gueye sopp na bi ñaan ko borom bi yàlla kattanal ko defal ko jàmm hmm. waaye defal ko booleem jullit rek eh, ziar leen eh, alaaji Idrissa Gueye ñun ziar ko Abdoul Baaxi Gueye ñoom ñëpp hmm. eh, oustaz Malick Gueye bu bàyyi Aline Gueye man na Fall mu ngi ndokkeel moom it léegi rek ñu hmm. koy sant baax si émission bi fa tabarakallah kii nag moom dani dani ndax kii eh, ki mortat mhm. toog ba sees yàgg wax nga ko fii démb mhm. eh, ni man daal génn naa ci islam génn si islam mooy loolu mhm. nee na jamono ba mu koyee bu fekkoon dafa yor njàpp buy génnee ba mu génnee si islam xelam ko mu ne def naa naa delluwaat bu del si ndax day sangu farata wala déet waa kii dem ci génn ci islaam macha allah yal na yàlla muccal ñu ci Eh, lu ñàkk la lu lu baaxul la eh, kooka it deesoo xëy xëy jël paaka reen di waaye nag dinañ am fu jaar moom eh, ba kere muy daal di ñëw su fekkee da cee génn na yëg ni def na erreur benn mu yëgal ko boppam wala benn ñu wax moom ba nga xam ne yëg na ko loolu moom jàppam toj na ca saasa na jàppam toj amaa sangu gi moom sangu du ko ci waraat lu dul boog mu def loo xam ne càngaay da cay war su fekkee day moom tu génn na ci islaam dem fanaan ak soxnaam xëyaat ah su boobaa nag kooka nag sangu daf koy daf koy war mais am maana su fekkee moom euh, euh, jotu deful dara luy war cangaay ginnaaw bi mu génnee ci islaam su boobaa yi sangaay euh, du ko na loo xam ne nag ko génne ci da koy waral sangaay su boobaa nag sangu daf koy war waaye ñu bàyyi xel ne ki génn ci islaam it dafa may àtt yoo xam ne teguwaat na ci moom lu mel ni ki bu fekkee islaam a ngi am kàddoom ah dañ koy tere ay soxnaam maanaam dañuy daal di tas ab sëyam ak yooyu ba mu ki ay eh, du doon ay doom ay doom duñ ko daal di doon xëy ànd ba muy duggaat ci eh, biir islam wallahu taala alam wa ahkam jërëjëf imam Mouhamed Habib Seck eh, fa tabarakallah mbokk yi mu ngi noonu mel leen waxtu wi njëtt nañ dañ koy yemale si ñaar yooyu rek ba dellusiwaat képp ku am question boo war a laaj rek jaarale ko si 77 215 81 03 moo xam whatsapp la moo xam lu mu mën a doon hmm. jaarale fa sa question rek buñ dikkee fii si seen émission waxtu wi Euh, asual wal jawaab di tontu baax taaxal yi dinañ ko si jàllale nga jàllale ko si 77 215 81 03 Habib fa tabarakallah sant nañ bu baax. Mm-hmm. dellowaat la kàddu gi. waaw Cheikh Moussa alhamdulilah di sant borom bi jalla waala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ñu ko dooree woon di wax subhanaka allahumma bihamdika astaghfirullah astaghfiruka atubu ilayka euh, di nuyuwaat ñëpp rek bàyyiwuñu kenn wallahu taala aalam wa ahkam ah Cheikh Abdou Aziz kon xam ñu delloo antenne bi rek ba euh, vingt une heure et demie incha allah. ànd ceeg Cheikh Ibrahima Mbeng euh, ci ak Assane Gueye ak yooyu incha allah fekk ngeen bi ndogu ba jekk.